سفر بنزة جنة سفر بنزة جنة سفر بنزة جنة asalaamaaleykum waa kër Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi fas yéene ànd ak ci seen émission karamati xatu yaddi ci fan ci Touba Monde bi TV ànd rajo Xassida online loolu kañ lay doon. alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2020 à partir de 18 heures ngir lan émission waajtaayu màggal war ci ànd ak ñan ñi ma bëgg a wax sëriñ Sidi Ndiaye xasida ak kan Baye Ibrahima Lo bu Espagne ak kan Serigne Abdoulaat Ñang mbokk yi waajal leen ko muy émission bu am solo kañ lay doon alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre à partir de 18 heures wasalaamaaleykum wa rahmatullah